bokk internet yu ñuy bàyyi xel saa su ne fii ci Feeling Dakar lundi 16 novembre 2020 li gën a fës ci xibaar yi bokk na ci euh, li nga xamante ni moo di décès Père Balla Gaye euh, numéro 1 moom daal dina wuy ji boromam ni ki démb dinañ wax tamit ci li nga xamante ni moo di retour bu Pape Cheikh Diallo gannaaw ba ko Viviane invité ci euh, soirée boobule buñ fa jógee nag dinañ wax ci ki nga xamante ni moom moo di Mamadou Diop Iseg bu ñu noppee rek ñu daal di koy jeexale ak coow coow li nga xamante ni daal dina dox ci diggante euh, Sidi Diop ak Wally sekk ñoom ñaar ñëpp nag ni ki euh, démb ku ci nekk daal di woon tëgg soirée euh, fa nga xamante ni moo di ca Almadi kii ci Wally Seck moom daal di woon tëgg ca Vogue ki nga xamante ni moo di Sidi Diop daal di woon tëgg ci Queen X5. déglu del xool Feeling bi lay jox information Dakar. bokk internet yu ñuy bàyyi xeer saa su ne fii ci Feeling Dakar comme ni ñu leen ko waxee woon ci bopp xibaar yi rek dañ koy tàmbale ak ki nga xamante di moom moo di père Balla Gaye moom nag moom moo daal di wuy ji boromam liggéey démb ci dimanche bi ba tax na nag mu nekkoon la nga xamante ne ni daal di woon tiis lool ba tax na sax démb képp koo xamante ne ni daal dina teew foofu ca këram ca géejawaay rek sa yaram daal na daw sa xol daal di eh, fees ndax nag mbooloo ma fa teewoon ba tax na sax eh, am na ci ñoo xamante ni xol bu fees sax moo tax bañ leen tàllalee micro rek mënuñoo wax ndax nag ku ci nekk rek daal na seede lu baax ci ki nga xamante ni moom moo di père Balla Gaye numéro un moom la ñu koy ñaanal yàlla yërëm ko te xare ko aljana bu ñu noppee ci loolu nag dañuy daal di wax ci ki nga xamante ni moom moo di Pape Cheikh moom Pape Cheikh Diallo nag gannaaw ba nga xamante ne nii ab diire yi nii kenn gisu ko ci li nga xamante ni moom moo di écran bi loolu nag li ko waxaloon rek moom moo di moom Pape Cheikh moom le dafa daal di demoon fi nga xamante nii moom moo di ca États-Unis ngir benn séjour bu mu fa doon amal ba tax na sax eh, loolu mu ngi nekkoon rek ci jamono bi nga xamante ni eh, kii di Mo Gates tamit uh, mu ngi doon organiser li nga xam te ni moo di uh, fashion week boobule mu am doon foofu ca États-Unis waaye nag ki nga xamante ni moom moo di Pape Cheikh Diallo gannaaw absence boobu yëpp moom nag ni ki samedi bi ñu génn daal dina defaat apparition am rek ci li nga xamante ni moom moo di écran bi ba tax na gannaaw ki nga xamante ni moo di Viviane da doon organiser ab soirée naka noonu la ki nga ni moo di a ñëwee foofu ba Viviane daal di koy invité fii ci li nga xamante ni moo di euh, scène bi. tournée yi ngay dem lan la Pape buy ma ay eh, non non kaay nuyoo yow tamit. mariage forcé laa bëgg nga wax ci tuuti. mariage forcé. waaw si si. mais Pape yow sa Pape bi daa bëri. problème yaa ngi doog a commencé nag. mariage forcé. woy nag ko ma doog cee wax. tàccu leen ma Viviane bu baax. tu es la meilleure Sénégal Youssou Ndour la ñu am ak Viviane maa ko wax. dëgg la. merci beaucoup Pape kontaan naa jërëjëf. la yàlla def jàmm yokku dañuy wax nag ci ki nga xamante ni moom moo di euh, Mamadou Diop ISEG ba tax na nag moom Mamadou Diop ISEG gannaaw ba nga xamante ni jamono ji yëpp daal di woon na am coowal justice moom ak ex jabaram joojule ba tax na moom Mamadou Diop ISEG nga xamante ni moom moo daal di jiite li nga xamante ni moom moo di établissement boobule moom moo di euh, l'institut supérieur d'entrepreneuriatship et de gestion di ISEG ñoom nag ni ki démb rek. rek euh, li nga xamante ni moom moo di deuxième euh, chambre du tribunal de commerce rek dafa daal di résilier li nga xamante ni moom moo di bail bi ak euh, agence Al Amal immobilier bi nga xamante ni dafa daal di ordonner l'expulsion bu ISEC foofa ca Rufisque juuti ba li nga xamante ni nag moo di école de formation boobu di ISEC nga xamante ni dafa daal di am ay point de détachement lu ci mel ni Rufisque foofa ca juuti ba ba na nag deuxième chambre du tribunal bu commerce daal dina ordonné li nga xamante ni moom moo di expulsion bu euh, ISEC euh, foofa ca lieu yooyu ginnaaw ba nga xam xamante ni euh, agence immobilier bi di Al Amal moom moo leen ko luy woon. ba noppi tribunal bi yemul foofu rek daal dina koy condamné ngir mu fay agence boobu le li nga xamante ni moom moo di un million huit cent bu ñu sukkandikoo ci li nga xamante ni moo di les échos. ñu wax nag ci ki nga xamante ni moom moo di euh, Wally Ballago Seck moom nag ni ki démb daal di woon amel soirée foofa ca Vogue waaye nag moom Wally sekk ca la nga xamante ni moo ñeel wàllum sabotage bu euh, soirée Sidy Diop boobule moom moo Wally Seck lu mu daal di xam xamle rek moom moo di ñoom dañoo ñëw Vogue ngir bége béggal li nga xamante ni moom moo di fans yi leneen lu dul loolu taxu ko jóg. Wally Ballago ñu ngi lay siyaare Wally samedi keroog timis waaw tey eh, waaw maa ngi leen di maa ngi nuyu Sénégal yëpp maa ngi nuyu ñëpp di bëgg ñëpp ah vraiment on est venu pour faire la fête tey dimanche la rek. mais particularité bi depuis ça fait presque des mois joué au Vogue tey nga def sa premier retour lan mooy particularité waaw dara dañuy ñëw rek pour béggee boog boog moom ambiance la rek du dara dara garaaw ci waaw. loolu loolu moo waral tey nga teel ñëw parce que dañ daan gis. dama bëgg mu teel a commencé ñuy 4 heures ñu tas. ñu gis dañ ngay joxe ay masque joxe ay gel indi say euh, lépp pour respecter mesure de barrière waral. norme la lu ñuy teg la dañ ko war a def sama bos a ngi nii. jeex ñu dem ci bu ñoo jógee ci Wally Seck boobu sax dañuy daal di dem ci ki nga xamante ni moom moo di Sidy Diop moom Sidy Diop sax ni ki démb tamit daal di woon tëgg fi nga xamante ni moom moo di ca Queen X5 moom Sidy Diop gannaaw bañ ko taalalee micro rek dañuy daal di déglu kàddu yu mu yëkkati. waaw benn Sidy Diop boo xam ne dañuy wane ni dafa am beneen décision majeure. waaw bu ma ne xale maa gën. waaw ah, mais si keroog dañ doon foo rek mooy li may wax rek. lépp lu ñu mën a def pour public bi bëgg rek dañ koy def lépp loo xam ne bu ñu ko defee gis nañ ni lii bu ñu ko defee suñu ay soppe dinañu kontaan suñu ay fans dinañu kontaan dama koy def. mais moo tax tey euh, nga choisir dimanche pour jouer spectacle. waaw parce que démb nag euh, yàlla dafa dogal suma jumeau. suma xarit suma lépp da doon jouer euh, barki démb du moins démb Sidika mm-hmm. nga xam ne dafa bokk ci label bi di suñu nawle artiste ku ne xam ne heure bu may joué fii da ngeen koy gis mu ñëw mm-hmm. moom it muy joué ma ne pour une première fois comme que day joué nañ leen bàyyi lu ñu jàppoon yëpp dem fekk ko Thiès mm-hmm. dem dooleel ko ba dimanche ñu doog a joué waaw loolu la euh, mbir mi fi mu toll actuellement uh-huh. ak fi ampleur bi toll Sidi jekk na psychologiquement pour mën a affronter situation bi ah mais fi situation amu fi liggéey la rek situation amu fi liggéey la rek xale lañu nekk ci yoon di liggéey te di ñaan yàlla yoon wi ñu jël yàlla may ñu ci ndam buur fi yàlla rek moo fi nekk. mais est-ce que cette fois-ci jël nga les mesures sécuritaires pour mën a moytu nga xam ne daloon na ren keroog. ah mais bien sûr bien sûr bien sûr jël nañ ko bu baax a baax parce que boo seetloo jéewaat nañ fi beneen soirée te booboo gën a fees te kenn gisu ci dara dara lu ñaaw am ci loolu ndog la woon am na mi ngi ci suñu ginnaaw Sidi mi ngi concentré wu pour li nekk ci kanam. yàlla yàlla moo fi nekk mooy lan Sidi. waaw bon yàlla moo fi nekk mooy bon waxuma sax pour man mais képp kuy jeune di way. wala nga nekk ci muy manu menuisier bi mécanicien bi ku mu doon yàlla moo fi nekk ab loo munti liggéey yàlla rek moo fi nekk yàlla mooy yàlla mooy joxe ah. yàlla mooy xañee man foofu rek laay waxee mhm. waaw gis nañ nga génne benn tube waaw bu ñu ko dégloo dafay mel ni lu ñu préparé mhm. tay la wala démb et temps et pourtant nag et barki Serigne Saliou Mbacké rek laa yaakaar mhm. loolu ci digg confinement bi bi confinement bi defee deux mois laa ko enregistré ba confinement bi defee deux mois la ah loolu yàgg na yëngal par la force. ah mais man yëngal bi ma koy bi ma koy bi ma koy woy yàgg na. Hmm. loolu ku ne xam na bi may woy yëngal yàgg na. non am na yoo xam ne moom peut-être jaam ñee ko ci teg si da koy yëngal par la force li ak li mais man maa ne dama koy yëngal te ci kàttanu suñu borom bu ñu duggaatee ci kaw nga xam ne dama koy yëngal. Sidi Sidi exactement Sidi fan la toll exactement Sidi fan la toll exactement. fi ma toll mooy nekk ci suma ruq di liggéey. concentré wu di réglé ay morceaux yu am solo maa ngi waaj tamit clip bu am boo xam ni maa ngi koy jox sénégalais yi incha allah fii ak deux semaines dinañ jot benn clip bu Sidi Diop bu bees tàq. mais mais liy am. li ko Big Taf la war a ay gaaf. non non non man jàppewuma ko sax dara man dama liggéey rek sànni ah. def nañ ko bu yàgg peut-être day doog a génn rek ñu bàyyi maa bi mu génn mu génn gars yi bëgg indi ay kii ak mais man maa ngi ci sama yoon ba tey sax dañuy desandi ak li nga xamante ni moom moo di coowal Sidi Diop ak ki nga xamante ni moom moo di Wally Seck ba tax na sax ci soirée boobu di Vogue bëri woon na ay ñoo xamante ni daal di woon nañ fay teew ku ci mel ni daam seen ba tax na moom daam seen moom le moom sax daal dina yëkkati ay kàddu daal di koy jëmale ci coow loole cinq waale euh, daamay kat ba li tax ma wax la loolu mooy dafay nit koo xam sama nit la fu mu nekk ma ne fa lu mu wax ma wax ca lu mu def ma def ca ndax dafa mën nitam nit nag bu la dee taxaw di la jàppale ci côté bu nekk yow it da koy jàppale taxawu ko ci côté bu nekk ndax ku ne xam ne ni euh, dégg nga waali way wuréy bi moo ndax li olof jaay wax naa ñax salaat bu ñu benn ku weddi bi ne garal te ñàkk a tànk fu mu làqatoo di jëw soos ko toog sori te kat bu fekkee da ngaa dër mu lay metti boo gesto yëpp ci muuma sa xel war naa dal ah tey la tey nag te kat li ma la mën a xamal mooy xam naa ni foog dina wàcc ku wax dama damaa jàpp xam naa ni foog dina wàcc waxal